asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan xaas TV jaw dikkati na ñëwati na tey nag man dama gis lu daw sama yaram franchement maa ngi nii di def émission mais sama yaram dafa daw ndax dama fay fekk loo xam ne euh, daanaka daal euh, lii rek sëñ bi doy na jaamu yàlla jaw dikkati na sëñ bi maa ngi lay nuyu xam naa gëj ñoo gi gisante depuis sa émission bi nga defoon fale euh, sëñ bi tey damaa ñëw fekk fii loo xam ne dafa yéeme. dégg naa kii toog sa wet dafa ñëw tàqalikook sagoom dégg naa bi muy ñëw fii daanaka sa bunt yëpp yàq yàq na ko <laughs> ah da ngay fay <laughs> euh, sëñ bi kii lan moo ko jotoon ak lan moo duggoon ci moom ba tax mu mel noonu bismillah jaw ginnaaw biñ la fayee nuyoo di wax rek jaw ñëwati na jaw rek vraiment ga waa biti ba ñu ngi kontaan waaye man maa ngi sonn la la la la la yu nettali woon ndeysaan si am na ku ko doon nettali sëriñ ba ak bëkk néeg ba bëkk néeg ba sëriñ ba ni bëkk néeg ba ne la wóor ni fu gan yi kontaanee rek man mer naa fu ma kontaanee gan yi mer nañ yow nag seetal bu la ci neex sëñ Abdou Aziz Joro ko waxoon bëgg néeg ni ko man de si nga kontaan mun ko nag kon del baay nit ñi di toog waaye jawit soral ga ma jaw lii mm-hmm. euh, dafa doy sant yàlla par exemple <coughs> dafa toll foo xam ne àdduna di toll foo xam ni nit ki li ko yàlla di dénk day dem ba jaamu yàlla rek ciy des gis nga lii conseil bu may jox ñi ci biti mm. bul def sa doom bu wéradee rek nga sànni bul sa doom bu wéradee rek nga foog ni dootul wér parce que loo gis ci àdduna toujours mboox la ko caw nee naa la gis nga la yëngu wallahi la ko yënga la ko doole la ca biir te bokku ca moo tax nit ki tàggoog sagoom la ca biir te ko ca boo ko sippee sànni nit ki correct tranquille lii rek la gis nga wallahi bi bii door a ñëw sama kër man ñii laa gën a sawar a fat dafa metti nag di di nga jàpp ba sonn di di nga tëdd ba guddi dégg jàpp parce que daawul nangoo toog benn place daan waxtu tout le temps di def loolu mais tey est-ce que buñ ko bàyyi woon lii nii tey dinañ ko am tey est-ce que bu ma ni woon tey par exemple du ma ko téye sama kër lii nii tey dinaa ko am maanaam jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nga mën a jaamoo yàlla euh, ni day toll foo xam ni mooy li may wax rek te yàgg naa ko demandé aussi jaw ni bu ma ko tey étape première maanaam defaloon euh, sama centre dinaa ko tabax waa exemple pour ñi nga xam ni dañoo amee feebaru xel dinaa ci jaamu yàlla comme kii tey kii kaatim daf ma nettali lu ma frappé léegi ah waa si mu ni ci suba fajar gi da koo bàyyi xel mu jug julli fajar. moom mu yàlla xam na moo tax loolu nag man mm. foog ma jox ko micro. Mm. moom mooy xool ay alquran bu ko neex. Eh. mu tari ko ma xool avant may àggale. kon cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa taxu sinatun wa laa nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fi l-ard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 waaw tare laxat jaakum bismillah rahman rahim laxat jaakum rasulu min anfusikum xasisun alayhi ma anitum xarisun alaykum raxoo rahim fa in tawalaw fa la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul trop te lii mooy àdduna jaw lii nit ki day toll foo xam ni lii rek da koy xool xol ba di sedd guy jaw yàlla nañu yàlla dooli sutura te xam ne lii de danaa ci veillé veillé waat ci ndax lu dàq li amul ci kaw suuf mm-hmm. xam nga jëloon naa fi ku mel ni fajoon ba mu wér tey mu toog di ma attaayaal waaye sunu beneen émission moom mi laa jox mu toog attaayaal ñu xool ah, incha allah mu ngi ah, xanaa loolu di nga ko mën a defal sëriñ xaas di nga attaay ay ca jeex na incha allah. ñoo xam ne dañuy jël sa nopp di tari alxuraan ngay yuuxu. ñu ne rab ba dem na. faj nañ ko. am ñoo xam ne dañ lay génnloo ay sarax. su mel ni ay nag. wala ay affaire yoo xam ne daal ay. dugal dugg fu ko tey de. voilà euh, rab ñu ne rab ba dem na. en tant que Abdoulaye Diop Khass borom jinne yi ñëpp confirmé. yàllaay borom jinne yi. yàllaay borom jinne yi ah. waaw yàlla la may. waaw ah, macha allah loolu moom nangu naa. yàlla la may. Euh, Diaw macha allah ci question yi nga laaj ñii. dañuy tari aaya alquran rab bi commencé di lakk di wax waaye rab baa ngi lakk di wax est-ce que génn ñii dañuy def sarax pour déggook rab bi ni ko bàyyi parce que sarax mooy jaw kaa ñu négocier lan lii nga xam ne tey def nga ko lan laa la mën a neexal signé protocole d'accord naka lañ mën a def pour nga bàyyi mu ni la nañ signé nangam boo ko defee rek dinaa bàyyi mën na la cee ndax mën naa dem 15 jours ñëwaat mën naa dem benn fan ñëwaat mën naa toog dëkk parce que protocole d'accord boo xam ne yéen ñaar koy signé mais la nga koy signé justul. mën na ko nangu. bien sûr parce que moment ba nga koy signé loolu rek la gis deret ba nga war a tuur loo ko wax danaan la waaw. léegi moment ba boo xasee signé nag mooy faral jaw bu jàppee benn tànk bi day di wëlbatiku dem jàppiwaat beneen tànk ba parce que day bëgg lay jàll. waaw te damay wax nii li nga gën doo ko neexal jëw nit a gën rab nit a gën cin kon loolu mënoo koo neexal ça di dire buntu la boo xam ne est-ce que war nga faa mën a jaar jàll wala waroo faa mën a jaar jàll lii rek mooy problème bi nit ki lan moo war a mën a tax mu dooleel loolu ba di ko neexal pour mu war koo bàyyi te mu war koo mën a forcer pour mu bàyyi ko c'est euh, loo xam fa mu jaar dugg xam nga fa muy jaar génn ah bien sûr dama leen koy nangul waaw loolu xam-xam la parce que boo xoolee ah. moment ba ñuy tari mu ngay lakk kon la koy lakk mu ngi koy sonal waaw déet xam nga génn ba nekkul lu ma fekkee exact pour xam waaw ça dépend mais man xam naa ni bëri na ñu ko yëngal te fajuñu ko tey boo demee ci ndëpp ku ñu tëgg sa galeen nga daanu te pourtant moment ba nga daanoo da ngay jug faxasuwaat te teew rabbaangiwaat ci yow kon la la lan la bokkul akay rab ak faj rab bokkul deuxièmement nee naa la jaw ñu ne ma diw mii kat rab daf koo jàpp ma bind ni ko demal nga sangu maa ngi koy lor bëri na ñu rab jàpp ñu dem sangu la ñu sangoo leen gën a sonal te garab ga du àgg nga lu tax parce que moment ba nga koy sangoo yàq na garab gi wala mu solol la loo xam ne bien sûr mais exemple bi ma la gën a ma la mën a jox li nga xam ne gisoo ko nga teg nii garab lay toj garab ga xam na ko day ñëw toj ko di lan moo tax. mag ji bu ñu mosaan a teg lu weex wala dugub ñu jël këriñ def ci ñuul ba ñu ne dañuy bañ def fa dara waaw loolu sabab la misaal la léegi nag loolu yow it loolu ngay def ba nga xam ni tey rab képp ku lay jox ni la demal rek fajagu ko waaye képp ku la ni toogal nga toog tàllalal tànk yi nga tàllal mu génne wa ilaa tey euh, mu ngi mel ni ma xam mayor yor bi onze sànni force damay jàpp te bu ma jàppee damay xëcc boobu ñëw ma ne ko toogal loolu beneen beneen la loolu mooy <laughs> ji biir ah, <laughs> euh, waaw. dëgg la comme sama waay. mais mais mais mais di nga takk jabar léegi xanaa. ah bëgg waaw bëgg naa ko. bëgg nga ah. na ma jàppale sax ma takk jabar.

ci seen di xel dañuy jël loolu dem def ko ci jësit fu jësit ba yëngoo mu yëngoo kooku mooy ki am di xel te mënatoo koo téye ndax fu jësit dee bërët rek danaan bërët fu mu dalee mu dal tey boo gisee mu ngay tëdd di nelaw même bu jësit bu tëbaatee sax day yeewu ci nelaw par force parce que loolu dañ koy jël dem yóbbu ko foofu kooku leneen la. sëriñ nga xam ne. Mhm. yaa mhm. euh, wax si mbiru dëgg la sama yaram bu tàngee waaw bu tàngee seen bu tàngee si euh, la santé. Diouf Sarr xarit. Mm-hmm. Euh, testé woon la. bien sûr. test bi léegi. Uh-huh. gisuñu ndeysaan maa ngi nuyu ki fi nekk ministre de la santé nii muy docteur Marie Khemesse ñëw na ci sama saal bi te boobu moo nekkoon directeur de la santé. Diouf Sarr moo ko yónni woon sama saal bi mu ngi may seetaan bu baax a baax a baax ah wallahi yàlla xam na ko déet mu ngi may seetaan Diouf saar ñëw na yónni na ko moom mais d'accord nañ maa defal mais dañoo wax wax bu am solo ma nangul leen ko aussi tey bu ñu la ko defalee pajkat yëpp nañ jug ni pour ñu defal leen ko te duñ la wóol comme nuñ la wóoloo loola tax mën a gu ñëw la autorisé woon loolu da leen koy d'accord da nga leen koy nangul ndax jamono ngi ñëw gis nga lu ñu gën a dem rek wallahi yëf yi di gën a leer te li ma la wax chaque jour jox topp leen ma jarta gàddu yett wane li tax ñu topp la. mais test boobu ñoo ah, dañoo jël koo xam ni dafa wéradi xit xam Sénégal xanaa xama tey ñu. waaw waaw non leen daal jaaxaloon na ko leen lenn jaaxaloon na ko. kooku bi mu wéree ni ko damaa xiif moom dafa yéemu ci yàlla. dafa yéemu te li ma lay wax nii jour boobu ministre Diouf saar moo fi nekk ak ministre Moustapha Diop. ñoom ñaar ko fekk ñoom ñaar ko dëgg la mais loolu du dara lépp ci kàttanu yàlla la gis nga jaw nit ki bu wóoloo yàlla lu mu mënta def amut xaw ma nag mu cof ko waaye sunu borom boo ko wóoloo gëm ni yow yaakaar nga ko wóolu ko wan ko ni yow rek la wallahi du la rusloo ilaa yawmi diin man loolu laa gëm du ma bàqu waaye lépp jël naa ko delloo ko ci yàlla